ay yére yu weex lañu sol ñoom ñëpp ñu yore drapeau Sénégal jigéeni Sénégal lenn rekk la bëgg. lii xew Sénégal yàlla bu fi amati la wax lii xew Sénégal waratuñoo nangu amati fi loolu la wax. ay waay ku nekk balaa nga naan naam ne fa. nañ ñaan yàlla na ñëpp fekkee kenn bañ a manqué manqué bi doy na. looloo waral ñu daje ngir booloo teg fële bépp par parloo ngir lu ñu bokk. renforcer suñu ouverture ak suñu disponibilité pour ñu mën a taxaw lii nga xamante ne moom lañu tey woote ko fii. ñu mën ko mandargaal ci baas bi. li yàq ci manifester yépp suñu alal la ñu war koo sàmm ci seen kàddu. démb rek ñu ngi gis association bu jóg taxaw ñu nekk ay marchand ambulant nekk ay livreur cak-cak nekk ay commerçant ne ñoom nag lii mënatuñ ko ndaxte dëgg la nag nit mën nga exprimer li la naqari waaye ci kaw bul lor keneen mu am lu mu suturloo këram kanamu ndakaaru bi ñu gajj ba muy naaj kanamu ndakaaru bi ñu tojate destination Sénégal bi ñu doon tiitaroo destination Dakar bi ñu doon tiitaroo cohésion sociale bi ñu doon tiitaroo teraanga bi ñu doon wax fan lañ fan la ñu jaar dañu rus. donc si le système économique est touché kan mooy nekk les premiers impactés ñun ñuy dundal xale yi ak mag ñi ak góor ñi jigéen ñi. je suis allée hier à mon institut man fi ma jàngee ak fi fi fi ma doon jàngale ce que j'ai vu j'aurais jamais pensé que c'était possible. que nit ku jàng fenn dina ko yàqe noonu. bu jàmm ñàkkee jigéen yaa koy gën a yëg. looloo waral ñu daje ci ab plateforme bu ñu dippee jigéenu Sénégal di dajalee jigéen yu baw ci secteur bu ne ngir aar te ñoŋal jàmmi Sénégal